merci beaucoup di am mbégte di euh, bokk ak yow plateau alors dañuy euh, door rek waxtaan wi ak euh, kaddu Ismaïla Madior Fall yëkkati fële ca turki ginnaaw bu doon amal lii di forum de la diplomatie foofu ca antalia moom ministre des affaires étrangères mu ngi nuy xamal ni kat fii ci réew Sénégal. Euh, daanaka euh, amul benn coow boo xam ni mi ngi fii euh, mi ngi fi xew moom aussi si biir ak kàddoom ba tey mi ngi nuy xamal ni xeex amu fi jàmm ak salaam mi ngi fiy xew ñu ngi respecté lépp loo xam tey jii dafa nekk décision justice rawatina lii di conseil constitutionnel waaye aussi moom ci ay kàddoom ba tey mi ngi féddale kóllëre Sénégal ak li nga xam ne nag moo Turc daanaka convention ba mi ngi dalee depuis 1963 ba léegi moom aussi ci ay kàddoom mi ngi nuy xamal ni coup mosu fi am guerre civile mosu fi am Sénégal dafay daal di rester nekk li nga xam ne nag moom moo di benn dëkkub démocratie ana tey ji yan jàngat nga mën a am ci kàddu yu Ismaïla Madior Fall yëkkati xam nga Ismaïla euh, Madior Fall dafa nekk euh, euh, bi muy dem Turquie dafa dem en tant que diplomate ah. donc en tant que quelqu'un qui s'occupe wala qui se soucie d'abord de l'image bien de la diplomatie du Sénégal ah. pour dire que bu dee ci langage diplomatique lay wax la signature d'un État mu ngi dépendre ci ki ki koy ki koy représenter ah. ak kooku bu demee des fois day gis loo xamante ni ñaaw na sax mais du nangu mu ñaaw ci kanamu ñi nga xam ne ñoo nekk ay nawleem mais le problème c'est que aujourd'hui adduna bi danoo nekk euh, un village planétaire dara du fu umpee mhm. euh, li xew tey Sénégal jàppal ne français yi américains yi turcs yi ak russes yi yëpp ñu ngi koy yëgandoo en même temps parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un monde boo xamante ni dafa dafa am réduction euh, boo xamante ni dañ koy jaaree ci Euh, numérique réseaux sociaux yi donc information dafay viral luy xew Sénégal tout de suite balaa deux secondes wala cinq secondes euh, français bi mun na ko njëkk yëg sax sénégalais bi pour dire que loolu mu wax ne euh, réewum démocratie la d'accord mun nañ ci débattre mu ne également amul violence d'accord mun nañ ci débattre nee amul également loo xamante ni fitna bu am ci réew mi mun nañ ci débattre mais léegi tey pour tontu ko ci loolu kese dañ koy résumer rek ci loi amnistie bi. Mhm. parce que loi d'amnistie bi c'est le résumé d'une série de violences à la limite criminelle. Mhm. meurtrière scandaleuse. Mhm. pourquoi parce que euh, luñ ci lu ci dee ci nit. depuis deux mille vingt et ba tey ëpp na cinquante. donc loolu fitna du ko gën a rëy. terroriser yu du weesu ñooñu dee mënoo leen wax. kii moo leen rey. Mhm. indiwoo benn enquête. c'est une terreur. Mhm. famille boobu di dund loolu pendant trois ans. tu pense que bu tëddee dina nelaw. Mhm. léegi ñi nga xamante ni dañ leen tëjoon. tey nga leen di libéré benn par benn benn par benn. ginnaaw bi nga leen accusé ñii ay terroristes lañ. ñii nga ne leen ñii ay fort spéciale d'ailleurs sax am na benn membre force spéciale bu génn tey. exactement donc tey nga ne ñii ñooñu leur famille. et leurs yenn Sénégalais yi am sympathie yi ak cofeel yi mhm. da ngay sentir ñii am na ñoo xam ñu ngi dund injustice mhm. mais ça de la terreur mhm. Absolument. psychologique et morale maintenant dafa am lu fi am également les violences elles sont à la à la fois policières violence d'État d'État maanaam jël force publique di police di gendarmerie des fois boo ko utiliser même boo da dalul ci kaw askan bi jàppale yaa ngi leen di terroriser. Uh-huh. moi par exemple euh, ci événement yu daan am mais élèves yi duñ daan jàngi veille bi wala bu ñu commencé parce que événement buy am suba. Uh-huh. da ngay gis le soir euh, les police policiers bi dafay dañuy yokk dakaar Dakar gendarmerie dafay ñëw armée di dugg ci ci dëkk bi. exactement mais donc loolu xale bi nga xamante ni loo gis loolu xamul loolu. man uh-huh. par exemple moi j'ai jamais au Sénégal avant 2021. Uh-huh. ñuy indi ay armée ñuy wàcc ci dëkk pour monter man mosuma ko yëg. Uh-huh. à part 2000 2011 loolu c'était à la RTS mooy jamono euh, mars décembre 2011. Uh-huh. maintenant li nga xamante ni loolu lay lay nier xam nga c'est très c'est c'est trop facile de dire que amul. mais c'est très difficile de de contester la véra la véracité des faits. les faits c'est quoi on a vu des Sénégalais qui ont été abattus. on a vu des Sénégalais blessés. on a vu des Sénégalais qui ont été dépossédés ci seen alal ñu taal ko la ñu yàq ko. Uh-huh. on a vu également un État qui a perdu son contrôle. Uh-huh. parce que perdre ce contrôle mooy au mois de juin deux mille vingt vingt trois vingt quatre vingt trois. Uh-huh. lui en tant que ministre de la justice Ismaïla Madior Fall. Uh -huh. lorsque Ousmane Sonko a été condamné par contumace pour deux ans ferme. mais moom def na conférence de presse ak Sidiki Kaba. ak kii nga xamante ni moom mooy le premier ministre Amadou Ba. Mhm. ki nga xamante moom mooy Antoine Félix Diome. Mhm. qu'est-ce qu'il disait il disait exactement que li fi jaal d'accord ñu ngi constaté que ne am na ay nit dee. Mhm. donc loolu bu dee amul fitna bu am ci réew mi ay nit deewuñu amul ay yàqu-yàqu amul ay toj réew mi bloqué wul Sénégal toog na fi ay fan kenn liggéeyul dara. même état bi liggéeyul parce que état pour mu liggéey foo mu am maanaam public bi foo mu am yitte ci loolu. wala mu am accès ci service yooyu quand il y a une perturbation euh, du point de vue politique kenn mënul génn socialement mais les gens yow mën nga nekk ministre tu vas signer quoi. Uh -huh. quoi pour qui. ki ki tax nga war a signer et au nom de kii ngay agir di askan bi askan boobu mu ngi toog këram ñenn ñu ngi manifester ñenn ñi sax bëgg na ñëw mais amuñu oto. Uh-huh. mais loolu nga ne dëkk bi amul ça c'est des perturbations yoo xamante ni mënoo ko nii. parce quoi? que même aujourd'hui techniquement et économiquement uh-huh. parce que y a une perturbation économique et des perturbations financières boo yemee ci perturbation économique rek dooy na mhm. de Dakar dem dikk rek dooy na preuve kooku il vous dit ñun ñu ngi ñàkk au moins cinquante millions par jour mhm. léegi combien de combien de jours la kenn liggéeyul mhm. loolu est-ce que mën nañ ko rattraper américain bi nee na le temps c'est de l'argent tu perds une seconde tu as perdu des millions est-ce que maintenant tu perds pendant quarante-huit heures ñii ñu taal seen oto ñii ñu taal également BRT bi ñu taal ko ñii ñu mhm. dóoral ay bal ñu dee donc loolu je pense que quand il le dit il est bon mun na ko wax noonu rek mais mhm. moom xam na ne réew bu mu jógee am na lu fi nekk parce que bu dara xew xewloon fii kenn du tudd ay amnistie alors lan mooy motivation mu dem ba si euh, ndaje moomu muy defendre li nga xam ne nag moom moo di Sénégal jëmale ko ci wàllum démocratie waaw xam nga xam nga déjà nee naa la sànq euh, te moom il vous il vous l'a dit mhm. bu koy Maïmouna euh, di interviewé la dernière fois dans cette semaine. Uh-huh. di ko ñaanal après j'ai même pas l'occasion de ñëw ci loolu. Euh, def ne Maïmouna il faut comprendre moi je parle pas en tant que ministre de la justice. Uh-huh. mais je parle en tant que ministre de des affaires étrangères. Uh-huh. et les affaires étrangères dafay am volet nu des volets diplomatiques. le volet diplomatique c'est l'image du pays et tu l'incarnes est une incarne une bonne signature du pays mhm. même si dee am na entache lu ko entaché ci ñaaw-ñaaw mhm. yow du doo na dem nangu ne ñaaw-ñaaw boobu am na yow lu la yitte mooy noo koy défendre noo koy setale ci kanamu say say say nawle mhm. mais le problème c'est que boo nekkee Nations Unies wala nga nekk Union européenne wala nga nekk Sénat américain wala nga nekk turc ci benn euh, colloque mhm. ñu ngay waxal ñoom danoo am information comme yi nga amee information parce que danoo am ay chancellerie ci réew mi mhm. ñu am ay ambassadeurs information yi di daw comme il se il se doit mhm. donc il y a des rapports également qui qui expliquent réellement lan moo xew réew mu Sénégal la preuve bu dara na day xew fi dañuy wax yéen ñi bokk su ñun te nekk Sénégal bu leen génn parce que am na risque de trouble à l'ordre public da toog seen mhm. kër yi. waaye loolu fu ñuy jëlee information yooyu autorité boobu ngay waxal moo la gën a xam lu xew fi. Mhm. parce que luy xew fi mooy tax ñu koy bind rapport ñu leen yéen citoyen turc wala américain français. Mhm. restez chez vous. ou bien éviter ngeen dem ci yenn zones yi parce que dëkk bi dafa am ay risques. Mhm. waa léegi comme maintenant il peut dire euh, que le Sénégal il y a pas de violence nous sommes une démocratie un état de droit. Mhm. et quant à le respect des décisions de justice il est bon de dire que le Sénégal était un état de droit avec euh, un e accent accent aigu bien écrit. Mhm. mais est-ce que ça reflète la réalité. et je donne un exemple très simple et récent. Euh, lorsque le juge Sabassy Faye bu mu joxee le verdict mu ne. Euh, na ngeen réintégrer Ousmane Sonko ci liste électorale est-ce que Ousmane Sonko a été réintégré non alors une décision de justice doit être appliquée parce que la constitution moom moo ne l'État ainsi que les citoyens sont soumis au respect de la constitution et mhm. des lois et des règlements et des codes donc si État dañ jàpp ne moom moo tooñ parce que citoyen bi. Mhm. mais dafa war a soumettre ci décision boobu. Mhm. mais malheureusement on a vu un état qui a foulé aux pieds. Mhm. et des services de l'état qui ont foulé aux pieds des décisions de justice qui devraient être à la limite. exécuté immédiatement parce que la loi électorale moom moo ko wax. Uh-huh. les décisions de justice euh, rendues euh, euh, joxe ko nga boo ko joxee le service de gestion du fichier électoral. Uh-huh. ginnaaw bi nga ko rendre donc exécution bi elle est immédiate on n'a pas à attendre demain ou ou après demain donc l'exécution est sans délai. et uh-huh. l'État n'a jamais rien fait. Maintenant, démocratie, c'est bon de le dire, mais, mais c'est difficile de l'écrire avec un grand D. Mhm, exactement loolu c'est très important jëmale ko ci li nga xam ne nag moom mooy kàddu yu Ismaïla Madior Fall jot yëkkati fële ca Turquie alors dañuy daal di.